soixante muy juróom benn fukkeelu mataala ak benn ci xarfu ta شاتجاني رضي الله عنه تبغة حرام والأصل في حرمتها قوله صلى الله عليه وسلم كل مفتر كل مفتر حرام وهي من المفترات من تبع دفع حرام تبع نك موي لب توخ ولا لو خمني dañ koy taal di ci naan saxaar wal aslu fi xirmatiha liy cosaan nag ci xaraamal ko qawluhu sallallahu alayhi wa mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kullu muftirin xaraam lépp loo xam ne rek dafay yóbbu xel dafa xaraam ci beneen riwaaya kullu muskirin xaraam lépp loo xam ne dafay màndal nit rek xaraam koy xam nga xam tuxkat boo xam ne waxtu tuxam jot na te amul lam tuxee dafay mel ni dof mu ne waxiya min al muftirat te taba dafa bokk ci li yóbbu xel wa kana radiallahu anhu yushaddidu fiha gaayatan maulana radiallahu anhu daan na taral ci mbir mi dayob tar tar taral wa yusallimu qawla man qaal daan na wéral waxub ñi nga xam ne ñoo daan wax te bokkoon ci nasiriyina yi ne inna saaxibaha alladi lam yatub min min la yamuutu ala xusni xaatima kiy jëfandikoo taba te tuubu ko bàyyut tuub gi fii mooy te bàyyut ko ba deyaaleeg moom wala te bàyyut ko kooku du am mujj rafet te loolu laaj leen ko ñi sang néew buñ dajek tuxkat nan la seen jëmm yi di mujje wa nasaba zalika li baadi nasiriyin wax jooju mu ngi ko ci قال العلامة سكيرج على هامش النسخة المخطوطة من هذا الكتاب المبارك بروم خم خم بيني وح رضي الله عنه بندنا تي نسخة بيم يور تي تيري بي دي إفاظ الأحمدية خم نسخة أصلية لا بن بندي لخو وحنا نصدق رضي الله عنه لقد كنت مبتلا باستنفاقها نحو السنتين من آه، مولانا رضي الله عنه وحنا دقي شو حمجي تشاتي جان رضي الله عنه وحم يب دفا دقو وعي وخين لا شي دقل وهو شاتي جان رضي الله عنه من لقد كنت مبتلا باستنفاقها نحو السنتين من يالنا طون نما مديكو خينشو نياريك wa kasartu xukka kama qaala qaddasa sirruhu mu ne maanaam baatu xukka xukka boo ko mooy koo xam ne dafay dafay xoos deram wi ba muy gaañ boppam mu ne noonu laa daan def sama bopp kom ni ni nga xam ni noonu la ko Mawlana Cheikh radiallahu anhu waaye wa bihi tadarratu lil Mawla mu ne nag ci loolu toroxlul borom bi subhanahu wa taala fa aafaani mu jéggal ma fii xiini ci ci jamono jooju walillahi alhamdu bi atam yi sant ñeel na yàlla ci lam ma dimbalee ba mu mën a dellu ginnaaw ci li moom sax Sukayri mooy nettali mu ne ajma al ulamaau ala tahrimi taabirata وما والاها من انواع التدخين الخبيثه من بروم خم خمي دبو نانتي حرام التبع اك يمنغوك موم تي خيت يني توخ تمبون وقد اتفق على تحريمها معظم فقهاء المالكية والشافعية والحنفية ني جنا مك فقهاء المالكية اك شافعية اك حنفية نيوم دبو نانتي حرام الكو am na nag ñi wax ni dañ ko sit cheikhul islam wa saadatil anam mus na ci def ab munazara ak benn borom xam-xam boo xam ne borom xam-xam bu mag la woon waaye dafa gisoon ni sigar tux xaraamu dañ ko sib cheikh ko ci laaya boo xam ne daf ci jëfandikoo zakau maanaam yeewte mooy suñ borom subhanahu wa taala daf ñu ne nañ lekk te lu teey te ku ne xam nañ li ñuy tux moom teeyut li ñuy tux kulu washrabu hanian e, bi ma aslaftum fi layami xaale loolu ci dispenc la waaye aaya bi ma bëgg du boobu e, min tayibaati ma razaqnaakum kulu washrabu min tayibaati ma razaqnaakum su ma juumee ci aaya bi ngeen jéggal ma Eh, cheikh lislaam radiallahu anhu ci tënk qissa bi bañ jaar ci baati juum waaye daf ko xamal ni lii di cigarette lu ñuy naan la surbu duxaan sax la ko arab yi di tuddee te teeyut mu daal di koy nangu moo tax shafiye yeeg malikiye yeeg xanafiye ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne dafa xaraam وكثيرا ما يدع السؤال عن مستعمل تابغة هل يؤذن له في الطريقة التجانية إذا طلبها أم لا منبرينا أي لايك لميرات جيني كي جفن ديكو سيجارت موي تبع ndax mom bu laaje sarixati yaan war وإذا اطلع على أحد على أحد مستعمليها في الوظيفة هل يتم إخراجها من الزاوية أم لا mu ne ndax buñ gisee كو koo xam ne dafa toog ci malaanam wasifa tañ xamee ko tux ndax dañ ko war a génne zaawiya bi كل هذه الأسئلة وغيرها أجاب عنها العلامة الشهير سيدي حسن بن عمر مزور بتأليفه المسمى as-suyufu al-muhannada as-sinnaan mu ne toon laaj yëpp Seyd Xasan Omar Seyd Xasan ibn Omar Mazur tontu na ci taalifam bi mu tuddee as-suyufu al-muhannada as-sinnaan li mustaamili tibri min al ixwaan muy jaasi yi nga mu ñaw lool ñu fas yéene cee dog baatab ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo taba te bokk ci taalibe tijaani almuhim ndax dinañ jox tuxkat tariqa tijaan wala déet loolu boroom xam-xam yi dañ cee wute e, ñi fiir dëgg ci tariqa bi dañuy wax ni déet Cheikh Tijaan dafa ne dafa xaraam kon duñ ko jox kenn feeg bàyyiwut tux maam alaaji abdullahi radiallahu anhu gis naa ci téereem ñu laaj ko ab laaj mu tontu ci loolu mu ne tufkat duñ ko jox wird moom dafa fiyoon waaye nag ñi am na ci ñeneen ci muqaddamu tariqa bi ñoo xam ne dañuy wax ni tuxkat mën nañ ko jox tariqa waaye dañ koy digal mu bàyyi tuxam mi cheikhul islam ci la bokk léegi nag dañ koy teg bayna baynal mizan ñu gis ku njëkk ki dafay def tashdid ku mujj ki dafay def taysir ala kullin ñaar yëpp boroom xam-xam yi wax nañ ko ci tariqa bi euh, dama ci jël misaal nag maam alaaji ak doomam ba cheikh ibrahim radiallahu anhu ndax ñoom ñoo ma gën a jege waaye boo demee ci téere bi as suyuful muhannada sinnaan yaatal na ci lol lol lol lol yàlla may na ñu jàng ko wa fil mawdu'i nafsi mu ne ci mawdu bi mo ci boppam muhaqqiq bi moy wax mais qala al allama sukayr fi tar fi tarjamatihi li sayyid sayidi tayib as-sufyaani ضمن الجزء الرابع من كتابه رفع النقاب mu ne Cheikh Ahmad Sukayri radiyallahu anhu wax na آه، منو فيها يقول العلامة السلطان الأسبق المولى عبد الحفيظ في الجامعة العرفانية تيوالوم توخ كلا بور بنجك به موي كي مينغوك نون عبد الحفيظ واخنا تي تيريم بي الجامع العرفاني عن كل منهي نهاها وامر بالبعد عنه انه عين الضرر ne lépp loo xam ne tere na ko lépp luñ tere Mawlana Cheikh Tidiane tere na ko te digle na ñu sori ko ndax lépp lum la digal nga sori ko rek loolu jëmmi lor la ci yow fa da li kulli muskirin aw murqidi kamal muxaddiri radii il mufsidi bàyyi lépp loo xam ne lay màndiloo wala mu di la daanuloo lu mel ni drogue yi nga xam ni lu bon la te dafay yàq wali duxaani tabxi wali istinsaaqi wa rasqi yi takun min al xuddaaqi bàyyil saxaarab tabaa bàyyil xencu bi maanaam fóon bi waaye wastinsaaqi waraqi bàyyil xencu ay xobam takun nga bokk min al xuddaaqi ci ñi nga xam ne ñooñu set te seen xel fel kon gis nga tabaaba'ud wa fi lmawduci nafsi ci même thème bi qaala al-allaama Sukayrij fi al-juz' ar-raabi' fi kitaabihi raf an-niqaab ci la Cheikh Ahmad Sukayrij wax ci téeréem bi ñu tuddee raf an-niqaab ci ñeenteelu xaaj bi ne ba muy tarjamal Seydi Abdul Wahab bin nis ad-Darir dafa ne tarjamna lahu fi kashfil hijaab defal nañ ko tarjama ci kashful hijaab wa dakarna huna ma nassa alayhi cheikhu radiallahu anhu fi taqdimihi tudd nañ ci kashful xijaab li cheikh tidiane radiallahu anhu yaxal ci bam koy jiital bi an laa yulaqina al wirda illa liman iltazam daf ne ko bul jox wird bi lu duut ki nga xam ne dafa tegu ci yoon أن لا يستعمل شيئا من القاذورات بوم جفنديكو دارا تي يوبوني شربان مو خام لوني نان لا كوم سانغارا او طعما ولا لوني مص او استنساقا ولا لوني فون او استفافا ولا لوني سخ او تدخينا ولا لوني تخ فكان واقفا مع ذلك <clears throat> نانا موم دارنا جفنديكو اللول وينكر بالتشنيع النكيري عن مستعمل شيء من ذلك من الأصحاب وينكر دان نبن بتشنيع النكير تترى الأكبرين عن مستعمل شيء من ذلك من الأصحاب والإخوان كي ñi nga xam ne dañ daan jëfandikoo lenn ci yi ñu tudd te bokk ci taalibe yi wa ala man yulaqinuhum alwird min geyri istiraati tarki dalik daan na taral lool ci muqaddam yi nga xam ne dañ daan jox ndigal doon jox wird bi ñi nga xam ne mën ñoo ba maanaam ñi ngi ci ñi ngi ci naan gi ñi ngi ci tux mi ñi ngi ci te sartaaluñ leen ne leen ko bàyyi xatta kaana yazunnu baadu jullati l asxaab anna dalika min suruti sixati l wird dem nañ sax ba ñu bëri ci taalibe yi jàpp ni bàyyi tux dafa bokk ci sart bi wa xabluha demoon nañ ba gëm ni jëfandikoo benn kii dalay dagg ginnaaw ba nga jëlee tariqa bi wa qad waqaa miraaran bayna fuqahaai tariq fi dalika kalaamun wa muxaawarat mu ne xew na ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñooy boroom xam-xamu tariqa bi ay wax yu baree bari ak i diisoo ak werante ci masala bi xatta kaana baaduhum yuxriju fi safi alwazifa wa dikr zarfa al usbati al xabisa ba sax am na ci ñenn ñoo xam ne dañ doon taral buñ fekkee ci wasifa bi wala ci bërëb ab sikar àjjuma tuxkat dañ lay génne alma maanaam ki nga xam ne moo daan moo daan euh, moo daan euh, kii nuñ koy waxee sax waaye moo daan livre xob yañ daan tux xobu tabaay ñu daan ko xam ñu xamee woon ko tanfiya tanfiha yooyu dañ ko daan génne buñ ko fekkaa mu toog ci wasifa dañ ko daan génne mustadillina bi samaai saahibi tarjama ñuy sukkandiku nag ci lañ dégg ci ki nga xam ne mooy sayd abdul wahab bin neef min qawli cheikhina radiallahu anhu ca la cheikh tidiane radiallahu anhu wax ni man ittalaatum alayhi annahu xaamila taabia bi anwaaiha وهو في الوظيفة فأخرجوا منها كيف كونين جس مير لويندي روك سيجارت ولا خير جوجو تمين تي وظيفة نينكو كوجين زاوية بي وتحركت المحاورات بين بعض الإخوان في هذا الزمان في ذلك من ورنت يوي تمي جدوات نانتي ديجنت نين تي تي دير جامونو ولتحرير المقال في هذا المقام تتميما للفائده moy nak yekati ay kàddu ci mbir mi def ko dafa war ngir jëriñ muné na qulu ñi wax ñun innal awla huwa ijtinaabu hadhihi al ushba li gëna yey ci nit ki moy mu bàyyi lool wa tarki tadsi manam moytu xob yoy wa tarku tadkhini te bàyyi وما شابه أجلن رغمهم لما قيل فيها من المقالات الهائلة ندخ لنك وفك أي كادو يتيتل وبالأخص كادو يتيجن روتنا نكادو يخمن ما ينصب للعارف بالله كوي أسكن للعارف بالله بوه ومسير محمد الناصري الدرعي من قوله كوخم جبوهن مستعملها إذا لم يتوب من تعاطيها فإنه يموت على سوء الخاتمة عياذا بالله تخكت su delluwul ginnaaw ci tux mi maanaam su ko bàyyiwut deegu ñaaw lay dee yàllañ ci yàlla musa wa kaana sayiduna radiallahu anhu bima fi ma balagana anhu yusaxifu dalik mu ne sayiduna radiallahu anhu ci liñ jot ci xibaar daan na dëggal waxu sayd muhammad nasir dari boobu fa kaana bi hada taxzir taam aadamu zajrin li muaatiha mooy tandikuloo boobu muy mooy tandiku mooy jajji gi gën a mag ci ki nga xam ne mooy tuxkat ngir mu bàyyi ko saawun kaana min ahli tariqa tijaniya aw gayriha moo xam tuxkat bi ci tijaani la bokk wala wala euh, mu bokk feneen fudul fudul tariqa tijaan moo xam ci tijaan la bokk wala mu bokk feneen fudul ci tariqa tijaan euh, محقق بي موي واخني شيخ احمد سكيري رضي الله عنه واخنا شي ترجمه بي مي دفال سيري طيب السفياني في رفع النقاب في ينتهي جزوبي بلغنا عن الشيخ رضي الله عنه انه كان يشدد في تابقه غايه ويسلم قول من قال ان صاحبها الذي لم يتب من استعمالها لا يموت على حسن الخاتمه من جبن خبار bu jugee ci Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu muy wax ni ñuy wax ni daan na taral lool ci tuxkat yi tuxkat moom mayu ko dara te daan na wax ni képp kuy tux te bàyyi ko doo am mujj gu rafet wax jooju nag daf ko daan wax di ko askanale nasiriyina yi mu ne fa inna dalika minhu taxwifun li faailaha li faailiha an taatiha لكونها من المسكرات المحرمات يعني واخ دان واخ مول دون واخ جو متي جو خامني داف كوي توخكاتي ngir ñu delu ginnaw ci bayyi tux waye ngir xamal len ni tux dafa bok ci li yobbu xelu nit te dafa bok ci haram قال العلامة سكيرج في كتابه طرق المنفعة بالأجوبة عن الأسئلة الأربعة Cheikh Ahmad Sukayri radiyallahu anhu wax na ci téeréem boobu nga xamne moy turuqul manfaa nga xamne mu ngi ci tontu ñenti laaj yu am solo muy téré bu am am solo jaar ñep war nañ ko jàng wax na ci téere boobu ne walxaasilu an ta'ati at tadkhin biha aw istinsaqaha aw istifafaha muzrin bi muruati dhawil 'ard an naqi mu ne lii mbir te mbir moy tuxkat bi moo xam kuy tux cigarette wala koo xam ne daf koy xencu maanaam mm, genre drogue woog yu mel noonu aristi faafaha wala koo xam ne daf koy log comme ni ko gaay di defe jël pon di ko dugal sa gémmiñ bi lu xasaw loolu mu ne loolu musrin bi muru ati zawil erdi loolu dafay eh, maanaam dafay rocci jom ci ñi nga xam ne ñoom ñooy góor yu sell yi moo tax tukkat moom boppam rek lay jàppee nit loolu moo koy may mu toog ci digg nit ñi ñëpp toog mu génnee ab megom taal nekkatul nit moo tax yatabaadu anhu kullu muttaqin képp koo xam ne rek ku fegu nga doo bëgg tuxkat jege la walakin sahma bi biha musibun li aqli متعاطيها بأوهام من واي آه، ستك شيطان أجي جملة قلو كي نخمني موي تخ دوغل تي خلم أي جم جملة أي إمالناسي ما يخمني أموت لا يكاد أن يتركها ما دام يرى غيره يستعملها من غير احتشام du bàyyi maanaam tuxkat du bàyyi tux mukk fekk mi ngi gis kuy tux may ma man nuñ ko ci waaye xaw ma may ma koy waxee noonu waaw fay fekk mi ngi gis tuxkat fekk mi ngi gis tuxkat du bàyyi tux mu ne wa qallama tarakaha saxsu lmubtala biha walam yaud ilayha néew na ku yàlla nattoo tux mu bàyyi tux ba pare te du ci delluwaat wala yubaali bi ma yunfiquhu alayha te yoonam nekkut ci xaalis bi mu ci yàq fa ala al aaqili min al kon ñi am xel nag te bokk ci taalibe tijaan yi li leen war mooy an yastatira inda tanaawuliha su leen yàlla nattoo loolu bu ñuy tool ñu nabatu waaye wax ji nag Cheikh Ahmad Sukayri dina ko defaraat ci ginnaaw dina wan dina wane ni encouragé wu dafa war a bàyyi loolu la wax maanaam même bu fekkee ragalul yàlla ci bàyyi tux na nëbbu nit ñi li ma warada fi ndax li rot ci xadis bi min qawlihi sallallahu alayhi ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man ibtuliya minkum bi cheyin min hadihi alqaaduraati falyastatir mu ne képp ku yàlla nattoo ci lenn ci tilim tilim yi mu di ko jëfandikoo na suturaal boppam su koy def ويقلد قول من قال بإباحتها مراي وخف نيغا خامن دا نكو بغا داغانال تا واخنا لا نلا مالكية شافعية حنفية نيوم نيب دانيو ديبو سي ني توخ موم دا حرام والاولى لي غنا ياي سي موم والافضل في حقي تغن سي موم هو تركها موي مباي توخ في السر سي لو يلو والعلني اكثر بر تبقى ما قررناه ngir mu méngoog li nga xam ne moom lañ dogal ñun ci tarixa bi kon gis na Cheikh Ahmad Sukari encouragé wu ko ci tux waaye daf koy wax na ko ba ndax loolu mooy di wér ci tarixa bi e, wa fii kifaaya <coughs> fii ñu toll nag doy na ab daytal e, kon kuy tijaan ak kudu tijaan yëpp li ñu war a def mooy bàyyi tux وكيف يطيب له استعمالها بعد سماعه لهذا التخويف المهول نتكي نان لي عندك تيو بكنا جنا بوم ديجي avertissement يو تار ييغا خامن شيخ تيجان الذي لا يترتب الا على الاصرار على اكبر الكبائر يا خامن رضي الله عنه يي مو تكو تكو waruñ ko tëkkoo kenn lu duut ku ku tay di def bàkkaar bu mag kon gis nga tux dem na ba yegg ci bàkkaar bu mag wa hiya wa in lam yakun warada bi tariqi tansisi fiha an sharia même bu fekkente ne sax nassu rotul jugee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa xamalaha bi sababi dalika baadu al ulama min xiini zuhuriha ala al ibaha moo tax ñenn ci borom xam-xam yi di ko jéem a nal naan dañ koo sib rek nangam nangam fa nahnu nunaffiru minha al ahibba wal ashaab ñun dañ koy dawloo suñu soppe yi ak suñuy taalibe wa nasalu llah alsalamata minha wa tawfiqa mabtuliya biha lil iradi anha ñu ngi ñaan yàlla jàmmal ñu ak dëppale ñu ba mu bañ ñoo nattoo lii ndax natoñu li day tax ñu dëddu payam bi ala fiha min يتعين at-tariqa anna laysat min al-qawati mune nak na leer ci ki nga xamne ak soobom ci tariqaam ràññeeku na mu xam li du ko dagg ci tariqa wala yumnau mustamiluha min al-wirdi ki nga xam ne moo koy jëfandikoo bu bëggee jël wird kenn du ko tere bal hiya wa gayruha min al waaye tux ak yu moom ci tilim tilim la bokk yi nga xam ne laysat min min min al ci di daggi taalibe bi li kawni wirdu tijaani ndax wirdu tijaani yonta li taalibihi walaw kaana asiyan dañ koy jox képp ko sàkku donte que mooy katu yàlla la moo tax nga ñëw jël si ko boo jëlee wirdu bi rek di nga bàyyi tux والتوبة بيد الله توب كله ليالنا يمنوها للموفق يوفق لها من خلقي موكي ماي كيب كو خمني دبلين كوك سانس في أي جامع فإن قيل ما يقال في تأييد الشيخ لقول العارف الناصري رحمه الله رضي الله عنهما سفك دني وخ لني مانا وخيفنا لني وخ تي دجل وخ جي شيخ رضي الله عنه دجلي وهو شيخ محمد الناصري بوبو المقتدى لذلك الوعيد من قبل دفع لامبو أكتكو ما ما نص عليه في في تقديم صاحب الترجمة وسماعه أجلنا قبل بند نينكو منام يخل نكو مم شيخ جان بمي إجازال كينا خمني موسيد عبد الوهاب بن نيس Eh, fal jawaab tontu ci loolu ana zalika naka loolu wa in kaana yuxmalu ala al zajri al azim même bu fekkee wax ji dañ ko mën a déggee jàjj gu rëy wa taxwiifi al mulim wala eh, maanaam <clears throat> ragalloo goo xam ne dañ la koy ragalloo muy ragalloo gu tiit fa innahu laa yanqatiu almuridu an tariq laa yanqatiu almuridu an tariq bi isticmaalihi ku koy jëfandiku nag du tax nga dagg ci tariqa bi wala yumnau min talqiniha nihi amalan bi taqdimat alxaaliya min dalik tey tamit <clears throat> duñu ku ko bëgg a jël tey tux duñ ko tere du du du jox ko ko ndax am na yeneen ijaazaat yoo xam ne Cheikh Tidiane bi dina ko te boolewu ci lii وعدم منع جل المقدمين المريد منها بري ak bëri li nga xam ne ñu ëpp ci muqaddam yi terewuñ ko seeni seeni taalibe wa in kaana galibuhum in lam naqul nga xamne ne ñoo ci gëna a noot bu ñu waxul ñom ñëpp lam yastamiru wa jëfëndiko wuñ ko manam talibé yi téré wuñ leen ko waaye jëfëndiko wuñ jëfandikoo wuñ nañ koy waxe sax jëfëndiko wuñ ko وإني لأرجو أن أكون كلام الشيخ قامعا منها في الظاهر ومانعا مريده في الباطن mu ne maa ngi ñaan yàlla di yaakaar kaddu Cheikh Tidiane gii dina nekk loo xam ne dafay màbb cigarette ak mboolem xeetu tux yi ci zahir waaye day tere taalibe bi ci baatin min al muwadabati alayha ci mu jéem a sax ci tux in kaana mubtalan biha bayn al awaxir su fekkee dañ ko ko nattoo fi ci aduna kon gis nga lolu lu amam solo la kon tux mom mun tabax kep ku jël tariqa ta nek tux kat jox ko tariqa ba pare nga jaarale ko ci yoon bi nga xamne ci lay baye tux tey maqaal boobu lañ la indil bu ko defé beneen yoon ñu indi harfu sa sunnatu min al akhirin hum asxaabuna